billahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim yi sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen jaare jiite ci nuyoo bi nag sunu kilifa Serigne Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéree li cëram di nuyu tamit di jaare sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na ko fi yàggal lool Fall te wéree li cëram di nuyu mboolem kilifa diine wala kilifa aada di askan yépp nga xam ne saa su ne dañuy baaxoo ci waar wi TV ci jataay yi di koy bokk ak ñoom tey jii nag di jotaay bu am solo ci naam ci jotaay yi daana amee solo mais bii di ci bokk ci yi am solo ñuy waxtaane kenn koo xam ne eh, jàmbaari Sëriñ Tuubaa yi la bokkoon bokk ca leer ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fan wa gàtt lool waaye nag mu jëf fa jëf ju rëy lool ah, nekkoon nekk koo xam ne nii boo nee Sëriñ Baara ñëpp xel yëpp dafay dafay màcc jëm guy mbind xel yëpp màcc jëm Mbàkke Kajoor ñuy màggal Mbàkke Kajoor suba nag waaye nag euh, jàngoro ji lim ñëwee ci réew mi du tee ñun ñu def suñu warugar ndax Waarwi TV kat li ko tax a jóg mooy liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak liggéeyal dongo yi loolu mooy suñu yéene mooy suñu yitte te askan wi tamit ñu ngi ñu ciy jàppale bu baax a baax ci jotaay bi nag ma ànd ci ak suñu jëwriñ bu baax euh, nekk koo xam ne macha allah ñëpp xam digganteem ak yoonu Sëriñ Tuubaa waaye yoon woo gis rek ku ne am na ku la cay jël boole ci yoonu dugal la ca muy Sëriñ Baara Mbàkke moom Cheikhul Khadim nekk ku baax nekk nag ci donga Serigne Touba yi nga xam ne moom moo leen di préparé boppam li ma naan Cheikh Ahmadou Bamba saa soo gëstoo da ngay gis ndaw loo xam ne moo koy préparé xam nga sëñ maam mu góor mi fi dajal dajale woon alxames bi wax dëgg yàlla waxtaan wa rafet na mucc na ayib kàddu ga leer na ànd naa xam-xam ak yar ak teggin ak war mooy dëkk bi Touba gépp di ko rafetlu may jaajëfal askanu Touba yëpp ndax li ñuy tax a jóg mooy li ngeen di bëgg ma dikk nag sama gan ma nuyu la salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyoo bu baax di ziyaare di la saahibal fadila Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool ba yéene njure yi mu yéene liggéeyal Serigne mu defee ko ni mu li muy seen bëtam ci Seexul Xadiim mu jàpp ko ak loxoom di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa Cheikh Ibrahima Fall yàlla moom moom kattan moom moom dimbal yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla dafa kattan di ziyaare sunu Serigne sunu xarit di Cheikh Mouhamadou Moustapha jëwriñu Serigne Baara di ñaanal suñu borom dëggalal ko bu baax kattanal ko ba yéeneem ci sëriñ ba defee ko ni mu ko bëggee di ziyaare mbooleem ku gëm sëñ Tuubaa mbooleem ku dib jullit di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah naan la bisimilah ci biir Waarwi TV euh, boole nan la ci kër gi ndax sa taxawaay ci dëkk bu sell bi kan mooy Alaaji Baara waaw Cheikh Mouhamadou Lamine buñ ci waxtaan dana yomb lool mm-hmm. waaye dana jafe sëriñ Baara mi ngi gane dëkk bi naan Touba fii sëñ Touba tudd. tam sëriñ Maxtaar Bintu Lo mi sanc kooku moo jur Njaga Isa mu jur Soxna Xarima mu jur Soxna Aminta Lo. waaye juróomu jigéen nekkoon Soxna Aminta Lo doonoon nit ku yéeme nit ku sëñ Touba di mbiri. mu gane jamono fii sëñ Touba tudd tey di 1891. koroog bi mu ganee jamono ci a mhm. ngi dégg sëñ Moussa Ka ganeem ba. kan la seexaloon. da ngay bisub ganam bi àdduna ci saahir kon mm-hmm. la Bamba waxee wàcc juróomi mbër Cheikh Ibra Sarr Cheikh Manu Mbeg Masamba Cheikh Abdourahmane Cheikh Ibra Fall Mam Bamba kon mm-hmm. day na woo ba mu ñëw mun li ngeen liggéey jaare ko Cheikh Mamadou Sawa ak Cheikh Mamadou Fadal gën gi di Cheikh Mamadou ko mm-hmm. am leen xabbaytu hansa ko am di daal di wax leen seexal leen sëñ daa Abdourahmane loo jóg ñëw ne comme damaa bëgg mbooleem lu sant loo bu mu dem sawara sëñ ko defal naa ko ci barkeb gan gi mu ko damaa bëgg tamit bàkkaar bu ab taalibe bi Sëñ Tuubaa ba nar dem sawara nan ma ko yan man daam Abdourahmane Lo Sëñ Tuubaa ne ko yéen man la ko waaye yéen boo gis day mu téeñ mm-hmm. bu diggu jot na nga naa fi la ñaan rakk rakk bu dem kaamil mu ko juróom fukki at ak juróom sëñ Baara gane jamono waaw namp ci waa benn weer képp ndax sëriñ moo toog ñëw daal ni suñ ñetti ruu yi am na bu suñ borom soxla soxna bu sa bàyyiwul sax soxna soxna mi ci bu sa wax dañ ko baal ma demal la demal mbooleem taalibe yi mu ne ko nooy def ak sëriñ baara mu ne soxna Awa Bousso doy na ma ci nga xam ne soxna sëriñ baara mook soxna kuntam bu rek sëñ Fallou ko yor ko mu dund mu nekk ak moom soxna mi loo jóg di daali reer ndox suuf matt ko bi ñëwee di ko wax sëñ Touba dafa kàbbar julleem bi mu paree sëñ Touba ko doggale defar ko ni denc ko waaye si am nañu mbàkke ñàkk dumu teel a ñàkk waajur moo tax sëñ Touba moo ko daan sëlam moo taxoon këstu di gis loo xam ne nit daw ko gis mu doonoon jëmm joo xam te boo dee xool am njàngaleem dund fanam dafa gàtt lool. 45 ans boo xoolee fanam da nga naan bi bi dund na 60 nangam. Mm-hmm. boo xoolee jëfam da nga naan kii jëfi ko dund téeméeri mm-hmm. tamit nekkoon jëmm joo xam ne bu fekkee da ngay xool njàngaleem ku teeloon a yeewu la ci àdduna. Mm-hmm. waaye ku teewoon a bàyyi boppam sëñ Tuubaa la. lépp lu muy liggéey tamit xasida gum jàng bu tollee day taxaw ñaanal ni sëñ Tuubaa daa ñaanal Rasulullaay di ko ñaanal sëñ Tuubaa yàlla nga am jàmm yàlla nga am ndam ci liggéey rasulullah bi yàlla yàlla defal nangam mu doon nit koo xam tamit ku bëggoon Cheikh Mouhamadou Moustapha la daaw ko da koo jëloon jox Mouhamadou Moustapha mu de mu jëloon xaritam wóolareem di Cheikh Mouhamadou Fadal ñu jaxasoo lool ñoom ñaar mm-hmm. daawul dem fenn te jaarul ci moom daawul ñëw Tuubaa te duggut ci moom mm-hmm. mun mu yëkkati doomam xaritam Cheikh Mouhamadou Lamine tuddee ko ko mu yoral ko ko mm-hmm. bis bi sëñ Fallou jógee màkk dem ta ndindi di ko fa jëli bi mu ñëwee sëñ Fall dañu ko boo soñoon njaboot gépp mën ngeen a yóbbu waaye dañu ko sabab bi rek mooy sabab turandoo bi laay jël mm-hmm. waaye loolu mooy liggéeyu Cheikh Mouhamadou Lamine noonu Touba la gënee jamono ta waajuram wu jigéen mi tudd Soxna Aminta Lo moog Cheikh Sa ñoo bokk benn waajur wu jigéen. Mm-hmm. Tamsir Maxtaar Binta Lo mi sëñ ci kooku moo jur Njaga Isa mu jur Soxna Xari Maam mu jur Soxna Aminta Lo mm-hmm. loolu mooy kooku mooy Cheikh Ahmadou Lamine muy ko buur woon sëñ Touba tamit ci askan wu baax askan woon tànn ci la bokk sëñ Massamba Gaddu Diop mi ñu tuddee sëñ Massamba Mbàkke mooy maami soxna Amintu Lo mm-hmm. di maami sëñ Baara mm-hmm. kon sëñ Baara askan wi bokk mooy askanu waa Kokki mm-hmm. Kokki njaga isa jaay googu nga dégg foofu la sëñ Baara foofu lay maami cosaanoo waaye tey bi mu ñëwee sëñ Touba dafa jaay lépp jënd ko ak taal lan la wax moom nee na bi bi bi nit ñi taxawee ne ko fan nga jàngee dani nii yaaraadi yàlla sa kayita kaf ka waaxal diita nii kaas bi daa romb góor yàlla yi ñu màndi kaas wala ma suñu borom jox ma naan waaye nag bu ma leen yéem lépp lu ngeen gis ci man maa ngi ko jëlee sama turandoo tedd wa di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Cheikh Mouhamadul Amin. Mm-hmm. Ah, mu am solo li nga wax. ndax fi mu bokk rek euh, ku baax fa lay bokk. <laughs> ndax euh, li ma naan ñu baax ñëpp danooy laal kokki <laughs> kokki nekk bërëb boo xam ne ne da ci ziare waa kokki yëpp nag. <laughs> Ah, soxna maam Diarra Diop mën a ci ziare bu baax bokk kokki Cheikh Amadou Lamine Bara gane at 1891. ci dëkk bu sell bi ci Touba. Euh, ma ñaari cër yoo xam ne da ko da koo am ndax boo nee kuy mbind rek day dem ci Cheikh Amadou Lamine Bara. ñu jëm ci màggal Mbàkke Kajoor mhm. soo nee Mbàkke Kajoor dañ naan Cheikh Amadou Lamine Bara lan moo lënkale moom ñaari dëkk yooyu ak moom waaw loolu sëñ Tuubaa koo cërale ndax cërale gi mënta woon yoonu murit mhm. Mbàkke Kajoor la taxawee mhm. sëñ Tuubaa Tuubaa mooy dëkkam 1882 la pàkku Tuubaa feeñ 1891 la sëñ Bara gën a jamono sëñ Bara Sanusi la nekkoon taawam bi njëkk a gis muy sëñ Modou Bara Sanusi la gën a jamono sëñ Tuubaa ko woo demal ngay wéttali ki sëñ sëriñ di di maam yi Serigne Thierno Galongal. ñu mm-hmm. ko demal nga wétali ko ca Mbàkke Kajoor bi ñëwee tamit ñëw dëkku ci biir dëkk bi daa dem ba ci catu dëkk bi dëkk mm-hmm. dëkk ci dëkk dem ba ci digg dëkk day bëkk dëkk bi màgg mu ñëw ba ci catu dëkk bi dëkk fa mm-hmm. sëñ Tuubaa joxoon ndigal mu sànc Mbàkke Kajoor bi mu sàncee Mbàkke Kajoor tamit ñu daan def at mu jot ñu koy màggalal bis bi mu gënee a bis bi mu génnee àdduna sëñ Saliou rabbi yàlla anhu yàlla nañu ko yàlla fayal sëñ Saliou doole ay leeram di ñaan sëriñ Cheikh Mbacke Saliou mu yàgg fi lool tànd gër ak bëggam ci sëriñ bi def nga ko ki mun leen def bis nit boo koy ñaanal da nga koy ñaanal bis bi mu gënee jamono mhm. def leen ko ndax bis boobu ngërëm la caa bari mhm. ñun di ko mu gënee jamono mhm. la seex yëpp ba mu fa nekkee tamit bi mu jógee sànni suba dem fasu naaru góor la yoroon ànd ak benn naar mu yenn ko wëli sam bi ñu egsi Mbacke Kajoor bi ñëw sëñ Baara dañ ko wax ma loo bëgg ma defal la ko ci yenn wi mu ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma gën a bëgg sëñ Tuubaa sëñ Bara ñaanal ko loolee. Mm-hmm. loolu moo ko boole sëñ Tuubaa ko jox ndigal mu sëñ Mbàkke Kajoor. Mm-hmm. looloo ko boole ñaari dëkk yi. muy Guy Mbind ak Mbàkke Kajoor. waaw Guy Mbind tamit mm-hmm. sababu Guy Mbind mooy Guy Mbind mbay dee la tudd. armée ay béréb la boo xam ku fa bàyyi am kër gi. ñu ko lu jóge ci penk bi jaar ci yow lu jóge ci sow bi jaar ci man guy mi sëñ Modou Sakho jox ndigal ma sanc ko mhm. bi mu ko sanc dañ moo ko rëddal kër ga ni ko lu jóge ci penk bi jaar ci yow mhm. lu jóge ci sow bi jaar ci man mhm. sëñ Baara nekk guy mi nekk fa lu yàgg ak guy nekkoon fa ñu daan bind guy yi fa la bind guy mbind a xam boo fa bindee sa tur mag ñi daan na fa bind seen tur ngir bëgg a texe loolu waral guy mbind gi waaw Ah, jërëjëf sëñ Samb li nga wax ah, am na solo te naa ne ko amoon baatin a waaw baatin macha allah waxtaane ko sax waruñu. Mhm, waaw baatin bi de moom foo ko takk weesu na ko. Mhm. ndax siroon ma sol la ko sëñ Tuubaa jox. siroon ma sol nag mooy ku sa kër ba mu pare. Mhm. nga xool magasin a jekk nga def ca ceeb ba. ki nga wóoru rek nga jox caabi. sëñ Tuubaa yëkkati siroon ma sol jox ko jox ko ne ko yow laa ko dénk bu wér. boo xam ne amul sikk sàkk waxoon na ko sax nee na sama mbir loolu luy dem ba léegi bàyyi ñu ngi ci njaboot ndax sëñ Bara gisul sëtam sa gisub sëtam mm-hmm. ci saayir mm-hmm. sëñ Mourou Bara la fi bàyyi doom bi muy nelaw tamit doom ñu fi mujjee bàyyi fukki ci gën a mag fukki at la mm-hmm. ni eh, ñi fi bàyyi ñëpp bi ñu fi bàyyi ay gone lañ ay tuur tànk lañ waaye baatin am ko mënta weesu an mun jot mun dugg nga xool nit ñi di sepp ñi fekke déwén ak ñu ñëw fekke déwén feebar bi fi amoon di feebar pes ñu daan jël par fukki nit di ko suul ci benn pax sëñ Bara ko fi jëlee bind yaa rabbana am ju siiw joojee daal di xool fekk déwén baati mënta ko solo jubóogum jubóog suñu borom nag mos naa ànd ak sëñ Abdou Lahad ñu ngi ko fi lool amiin amiin di ñaanal na mm-hmm. ñu takk sere tan dem bi ñu génnee bay jeexal bi lan gis waa dëkk boobee di wàllu ci bi mu ne ko bi ma toogee suñu borom damaa ni man ci waxambaane am nañu ma toogal koo xam ni daa war a faatu te suñu borom lu mu dogal neex na Mm-hmm. amoon na baati waaye doon déglu dogalu yàlla. Mm-hmm. nit la woon koo xam ne nit danga naan ñëw ci moom sëñ sooy mu sëñ Tuubaa nettali la mm-hmm. eh, eh, bu ba mu ñëw eh, ah, da nga tiit. kooku ñëwaan ñu ko dimbali ma gis sëñ Tuubaa daa bëggul sëñ Tuubaa ne sëñ Tuubaa mun ko damay indi fanweeri dërëm déy ma ñaanal la. bi mu ñëwee dañ ko dinaa la ñaanal nga am fanweeri at déy sëñ sooy bu nee na bind waa ji bi mu amee fanweeri ak topp benn bis ci la faatoo sëñ sooy bi nee baati moom sëñ baara laa ko gëmee. bi mu nelawee naan ñu ngi doog a ñàkk koo xam ne at moo mu wax la la ci xew. borom baati la faj moo ci gën a gaaw lu mu wax borom ba mu ni waaw day fal di fol ci lu gaaw mën naa ragal ci xarnu bi. Mhm. day way te jàngu woon xaraf. nga xam ni loolu nga xam ni sëñ Baara yi jës yi dogal jëfakun la yàlla daas ba mu ñëw mu jox yeneen mu jox Seex Bamba mu jox Sidi Lamine Baara kii um na làmb ji tey ndax aw bàkkam bu mag ci aras wuy jumtulaahi jàkka ñi ne jiine sëriñ baara mm-hmm. waaw mun ko ak malakoon ak kusu yoog jabaroon si na atte benn la ci mbiru siin lamin baara mm-hmm. mag ñi neen ko wàlliwu nga mun leen déedéet ñu ne ko loo doon mu ne ëllëg xutbu samaani sama borom sama daraja la leen faye mm-hmm. loolu baatin mënu ko weesu te sëñ Fall wax na ko ne ko yaay laayi jaarika fi may daani ahadin ko suñ kër yàlla yëpp yow sëñ baara yaa ci raw kenn mënu laa seen soo fas mu ne bi nga day yàlla pare mu ne ko man xaal saari mi nii sa bunt kër day fees mm-hmm. sa aajo faju nga xam ne loolu doomi sëñ Tuubaa moo ko seede sëñ Fallou yëm ñëpp mm-hmm. waaye moom si amoon ñàkkoon ki yam macha mm-hmm. tamit euh, baatinu sëñ Baara boo ko dee xool mën naa war fas am mbaam waajulu naar bi waxoon ni ko yow ni nga mel wàllu ni nga doon di war oto bu ban bi mu ne ko waaj bu la rombee dee yi war mbaam sax da nga xam waa jàngi bu ko sëñ Ibrahima waxoon ñu ko wàllu bu Kajoor ak Bawal ak Njàmbur ak foo ko fooge. di borom baati bu mat sëkk. Mm. sëkk sunu borom. mën mm. naa dugg Kajoor ñu koy wax feebar pest bi mu jël loxoom te ci rat ni leen du gi ñetti fan lañ ci fekk rat gi faatu. xam ni baaraay Mamadou Lamine ji nga dégg dafa amoon boo xam ne bëtu doomam moo tuuru. Mm. moom dong mu ñëw di jooy. ñoo boo demee ci Daaru Marnaan am na lëkk bu naan mbàkk fekk sëñ Baara. bi mu ñëwee mu teg sëñ Baara tëj mu tëj ci buntu ci ci buntu naan baaraay Mamadou Lamine Mamadou Lamine Baara Baara ku la way am ndam baari saxaaye sëñ Baara itam ni ko la dee mu ne ko sama bi daa tuur te maa bëgg ko dimbali sëñ Baara ne ko waaw wax ku ma way am ndam jël loxo ma teg ci bët ba ni mu sutuur nga xam ni yooyu yëpp sëñ Baara la ak i baaxam. Mm-hmm. mu mel bi sëñ Touba nelawee ñu wax ko Louga mu ànd ak sëñ Seexu Balla koroog sëñ Baara dañu Seexu Balla mu ne ko Mbàkke ne ko bala ngaa xam ni Baara de bala nga xam ni yoon dara lu yàqu Modou Moussa di xalifa sëñ Fallou di rakk mbaar di seen rakk. Mm-hmm. dara doo yàqu liggéey mm-hmm. bi nit ñi ñëwee ci sëñ Tuubaa tamit ne ko sëñ Baar daa nekk jaareem di def ay kiimtaan di ko wóolu mm-hmm. bu xar baax ak karaama ak wilaaya ci moom la dëppee te moom wax na ko sax nee na man lu ma jur wàlliwu lay doon même ñun bu dee jigéen sax wàlliwu lay doon te genn kilifa gu na benn doomu sëñ Baar bu jigéen wecc na ñaari seeti yu góor macha allah. kon loolu bisam bi ñu dugg muy bisu ngëneel di bisu ngërëm. Mhm. yàlla nañu tegee ngërëmal sëñ Tuubaa. amiin ci baax Cheikhul yàlla na yàlla yokk seen lii. am mhm. kawe lool. ñun sëñ Ba la ñuy dund dund ñu leneen. Mhm. Ah, jërëjëf sëñ bi moom kan moo rek dëj ji moom lan moo ko indi. Ah? waaw ni mu daan waxee la danaan yey dëj yi looloo taxoon ñu ko ab sëñ Ba rek ci dégg naa ko jaxasoo woon na sëñ Cheikh Awa Balla la. waaw waaw xaritam la woon tamit ndax tudd na ko ñetti doom mu faatu mu tudd ko Cheikh Sidi Moukhtar mooy ñetteel bi nga xam ne kon jaxasoo mënta weesoo ñoo bokkoon benn dëkk ñoo bokkoon nekk Mbàkke Kajoor. Mhm. waaw boobu Cheikh Awa Balla danaan def lu mu jur. du ma Cheikh Awa Balla euh, maam Thierno ko jur. Cheikh Awa Balla borom daaroo ko jur. Mhm. moo jur sëñ maam Thierno mu daaru Marnaan. Mhm. kon Cheikh Awa Balla maam Thierno Cheikh Balla di ziare sëñ maam Thierno sëñ maam Thierno. Mm-hmm. di ala di jarbaat alaaj jàmm si la yàlla ko yàlla taxawu. as gor la ku baax la ku ku am ndimbalu sëñ Tuubaa la. Ah, muy sama xarit di sama lépp yàlla ko sëñ Tuubaa dimbali. Mm-hmm. waaye moom sëñ Cheikh Baal ni mu jaxasoo ni mu mën la ko wax ñoo bokkoon sax yére yu naan sol. yegg. mu gunge war ba mu dëpp loolu ak cofeel ak bëgg mënta weesu loolu. Mm-hmm. Ah, jërëjëf sëñ bi ñu bàyyi la nga dal muy lu am solo ndax booy waxtaanee ku baax. sa xol da koy yëg. dëgg la te lu feeñ ci xol euh, dafay feeñ ci kanam. nag euh, moo tax ñu lay jaajëfal yàlla bàyyi la ak sam xel euh, moom kan moo njëkk a nekk xalifaam. sëñ Mourou Baara at mi ñibbee àjjana. waaw ah. ban année la ñibbi àjjana bi mu ñibbee àdduna boo calculé 1891. Mhm. ñeent fukki at ak juróom boo calculé 66 la ñibbi demal. 66 waaw 1966. waaw la la la génn àdduna. à Touba fii ji Touba. fii waaw Mbacke Kajoor bi mu génnee àdduna sëñ Mour sëñ Mour Assis. Mhm. ñu ko wax sëñ Mour Baara. Mhm. mu tuddee woon ko sëñ Mour Moussa gane àdduna Sànnoosi. mooy sët bi sëñ Touba njëkk gis moo ko wóotu. macha allah. sëñ Mour Assis bi ñu nelawee sëñ Mour diir ba gàtt lool. mu mu wàcc Cheikh Abdou Aziz Baara toog. Mm-hmm. moog sëñ Saliou moog sëñ Abdou Khadir ñoo bokk mel am na wàcc liggéey. Mm-hmm. bi toog. seen yaa yokk leeram. Mm-hmm. bi Cheikh Sidi Mokhtar toogee ànd ak sëñ at liggéey bi ba bis ñëw sëñ Sidi Mokhtar doon xalifa sëñ Tuubaa. loolu la Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacké mel. di ñaanal sëñ Sidi Maxtaar yàlla yokk leeram di ziare sëñ maam Serigne moom sëñ Laat Baara moom lay ah, sunu wëllëre. Ah, ah, waaw ku a ku baax waaw sëñ maam di ku baax. di suñu wëlëre suñu makk di suñu kilifa di suñu lépp bëggal ñu boppam yëpp baax nga sëñ a baax ah, maam sëriñ kenn la wallaahi xasin ah, ko baax ñaanal nag yàlla wéral bu baax a baax a baax a baax a baax bàyyi ko fi ba ci kanam ak rek ak ah, Cheikh Mamadou Lamine Baara ndax li ma naan bànqaas car la garab la mhm. bànqaas boo ca jàpp rek da ngay jàpp ne moo dàq ba ca des fekk ka ne ba nga jàpp rek nga xam ne yi des yëpp neex na mhm. di ko ñaanal wax dëgg yàlla muy ku baax na waaw suñu maam sëriñ moom baax oyof ak sedd. wallaahi wallaahi eh, moom guy mbind ñëpp a baax. wallaahi waaye moom dañ koo wér ndax danoo jax di sant mataar boobu mi nga xam ne moo taxaan ma xamante ak moom ah. mm-hmm. eh, di ko sant bu baax léegi nag Mbàkke Kajoor dikk suba. Mm-hmm. murit bi fa war a dem bi sax laay woon naka nga fa war a demee. lay taale mooy mooy ngërëm rek ndax sëñ Saliou bi ñu ko jox dañu wax ne nit a ngi dox bala ñu ñu dem Mbàkke Kajoor mm-hmm. mooy nit ki buy dem ngir waaji day day day dem ci xurungam fàq fa xoobu toroxlu mm-hmm. soog ko ci gënug tab dabi ko góorum mu yàq ko ci ndabi teggin mm-hmm. taare ko sawar a sakka yàlla jàkkaarloo nga wax ko ci caméra mu ngi ko waaye nit ki buy dem ci liggéey sëñ Tuubaa day dem ci mm-hmm. ci gënnu muñ dabi ko ko ci ndabi teggin saare ko sawar a sakka yàlla dana am saxaar daare nii te béréb la boo xam ni ki woote woote bi yàlla la boo demee fekk fa yàlla mhm. te loo fa fas sëñ baara nangul la ko mhm. sëñ baara aajo moo ci gën a gaaw lu mu mën a doon nag aajo moo ci gën a gaaw mhm. muy ki fay dem na laabal xolam na rafet xool rafet rafetam na xool la dàq ca yére mu sol ko ndax bis boobu la seex ñu amee ngërëm na xool li gën a rafet ci ci ci baat mu di ko wax na xool li gën a jekk ci julli mu di ko def ndax adduna kenn kenn jor kenn man yaskurullaha yaskuru naasa ku santul yàlla doo sant nit tawa maa sayim naa ilaa bi maa alim naa te sëriñ bi tamit lépp lu sëñ Tuubaa bind da ngay xool xasida yi ndax bi mu ne karaamati xalq yëpp karaama mooy lan mooy ñi fi nekkoon naan wax yàlla tawal mu taw bul taw mu taw defal naa nga suñ jaan mi mbind mi mooy karaamaam mu mel ni boo demee xasida jaalibatu maraaxib da cee wax lu yéeme mm-hmm. wàccal kitaabati ya rabbi rabbi rabbi mm-hmm. kii jàng sama xasida gi na ko yar na nga ko defar na ko aar mm-hmm. kon loolu ku sëñ Tuubaa ñaan ma ngeen noonu kon war ngaa defar sa bopp nii kenn wër ta yéeme sëñ Tuubaa jaar